soxna jaara bu bi ndeefi tey jaara soxna mbokk jullit yi asalaamaaleykum mbokk taalibe yi ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam ah, di leen baalu àq eh, te di leen baal di fas yéene tàmbali liggéey bi tàmbali liggéey bi nga xamante ni moom la ñuy def fii ci Kaolack Tabangoy eh, arefaal yaaram Euh, ci waajtaayu màggalu euh, soxna Jaara Bousso gi di Poroxaan 2019 nekk fii nag ak sunuy mbokku taalibe xamante ni ñoom lañ seqal liggéey bi ñoom lañ bokkal euh, li nga xamante ni moom lañ jëf ci bis bi jiital ci sunu imam bi nga xamante ni moo toog Serigne Basirou Ndiaye nga xam ne mooy imaamu koñ bi dinañ ko jox sax mu wax ci ay kàddu ay kàddu soññee ay kàddu yu digale ay kàddu yu taalibe ñu taalibe war a doxee ci bis bi suñ ci noppee naka noonu dinañ jox suñu jëwriñ sëriñ Serigne Makhoudia Touré bu ko defee moom tamit day wax ci taarixu bis bi taarixu màggal gi nga xamante ni moom la ñuy def fii bernde yi ah, li ko waral ak sabab bi ak lan moo tax mu jóg ah, suñ ci jógee jox kii nga xamante ni mooy suñu jëwriñ Serigne Anne moom tamit dina wax ci organisation bi solo si ak li nga xamante ni moom lañ ciy def ci ay xéewal ak ak nan lañ koy defee ba mu jag. bokki jullit yi bokki dëkkandoo yi bokki taalibe yi ñoo ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp ah, di jiital ci siyaar bi su gan yu tedd kii koñ bi nag ni muy doxee mooy. ñu rafetlu ko rek ndax bu ngeen dee gone yu ndaw nga xam ne dara ñoru leen lu sëriñ Touba ah ngeen sasoo ko ci wàllu maam jaara busa ndax seen liggéey bi kat ba ngeen koy tàmbali xëy na tàmbali ga sewoon na lool waaye tubaarka fa tubaarka fa la masha Allah ñu bari ñu ngi leen ci roy ci dëkk bi te lool rek mooy jëf ju rafet ak ju nangu kon noo ngi rafetlu seen jëf te dina ngeen ko waxee rek di leen soññaat yéen sax xëy na soñña gi moom da ngeen ñoo warmaal rek waaye yéen a nga ca ndax mag ñi dañoo war a ci yéen ndaw ñu roy ci yéen ndax seen liggéey bii kat war na ñëpp te it da ngeen cee am ak fulla ak fayda ak pas-pas boo xam ne kenn xamul lum dayoo ndax bu bis bi ñëwee balaa ngeen cee teg kenn leen da ngeen a waajal seen bopp nga xam ne buñ ne màggal gi ñëw na buñ màggalee ba noppi tàmbali ngeen waajal màggalug déwén ngeen ànd kook seen jigéen ñu baax ñi ñoom it am pas-pas macha allah ku ci ne ngeen tobbil kow sas sëñ Mor Talla mi nga xam ne moom yéen la la tut fanaan tut xëy na moo fare ci wàllu soññe gi ànd kook jëwriñ yi sëñ ma xuj Ture ak sëriñ aan mi bu ma tuddee ñooñ mel na tudd naa ñëpp ak sëñ aada jàllo ah, ñoom daal ñi nga xam ne ñoom ngeen jiital ay borom pas-pas lañ sëñ Mor Talla sax gis nga ko ni muy soññee nga xam ne moom dara yitteelu ko dara ñoru ko lul bis bi murit bu ne nag foofu la war a nekk ndax suñ njiit lee nga xam ne mooy sëriñ Ahmadul Muntaxa Basiru di sëriñ Touba tey yàlla na ko fi yàlla yàggal te wér loolu sax laa waroon a njëkkee maa ngi koy jéggulu yàlla na fi yàgg loolu te ànd ak wér moom de ab royuwaay la ndax nee na talu dara te dégg ngeen ni mu ko waxee bëgg sëriñ Touba doy na lépp kon alhamdulilahi rabil alamin nañ bokk bëgg sëriñ Touba rek fas yéene koo liggéeyal na ko suñ fàllu mbàkke mu baax ma waxe woon rek sunu waa ji de kenn du ko dab waaye nañ ko ne dan rek bu ko dee ñut kenn du dab kon foofa rek la a ah, koñ bi nag ñu ngi rafetlu taxawaay waay koñ bi yëpp ndax mag ñi nga xam ne ñoo fi newoon sanc koñ bi di magi sëriñ Tuubaa dañuy wax ne koñ bi li li fi am amul fenn ci Kawlax ndax mag mbooleem magi sëriñ Tuubaa yi fi daje woon di ko dalee xëy na sëñ Mën Njaay guy gi bàyyi ma mbay Juuf ba baay bàyyi baara si mag ñi ku lim juum ba ci euh, sa waajur wa sëñ bi turee ñoom ñëpp ñu newoon fii nga xam ne ku tudd tabangoy rek tudd leen kon xëy na jeexital googee moo ne ci yéen ba léegi te lépp loo xam ne xew na ci koñ bi yéen ñi yéenay ñëw taxawe ko muy naxar muy bànneex yéenay ñëw yor liggéey ba def lépp te xàmmeewu leen ci benn tarixa nag seenub liggéey nag li ci gën a neex mooy loolu waaw seen seen seen nu ngeen di doxee loolu moo ci gën a rafet waaw kër tarixa yëpp ngeen boole ñëpp leen nawloo kon noo ngi leen di ñaanal sunu borom sàmm leen barkeel seenub liggéey ni ma ko waxee rek doomi koñ bi moom wax dëgg yàlla ñoo ngi sant bu baax a baax ndax koo xam ne sax jóge nga fi ne ca Ndakaar lu fa liggéey yaa ngi bàyyi xel fii ndax gis nga ku fi ñëwoon caada yi la ñëw fii gis jàkka ji ni mel niñ ko defaree lépp seenub taxawaay tax kon noo ngi leen ñoo ngi leen ci sant leen ci gërëm auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayyidina walana muhammadin wa salim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi nuyu ñëpp ku ci nekk turam ak santam di nuyoo bi gën a selle di asalaamaaleykum wa rahmatullah di jiital ci nuyoo bi suñu sang bu tedd ba sëriñ Muntaxa Basiru di ko ñaanal mu yàgg fi lool ba lépp lu mu bëgg a liggéeyal sëriñ Tuubaa sama àggale ko moom moo mbokk mu yeeg taalibe yeeg yëpp ànd ko ak jàmm di ñaanal sëriñ Seex Jëmb Faal mu yàgg fi lool sama guddal fanam mu ànd ko ki rakkam ak mboolem taalibe yëpp euh, ginnaaw loolu ñuy sant yàlla rek di sant yàlla bu baax ci taxawaay bu rafet bii nga xam ne moom la ñu waajalee màggalu poroxaan gi tey ci Touba Tabangoy arefaal yaram ngir waajal màggalu poroxaan ah ginnaaw bi lañ santee ñoom it ñu ngi sant sëriñ Basirou Ndiaye imam mii nga xam ne mooy imam Tabangoy fii ci jàkkee sëriñ mu njaay guy gi nga xam ne moo doon waajuram doonoon ay magi taalibe yoo xam ne dañoo nekkoon fii ci gox bi nekk fekk suñuy waajur ah ginnaaw bi ñu ko nuyoo sëñ Bas mi ñu ngi nuyu imaam Diop di nuyu Serigne seex Sarr di suñu Serigne di suñu baay di suñu xarit di suñu wóllare ah ginnaaw bi ko nuyoo ñu ngi nuyu Serigne Abdou Lahad Mbacké mi ibnu Serigne Fallou ibnu Serigne Bassirou arefaal yaram nag amul lu tey sant rek ndax teewaay bi rafet na ci góor ñi ci jigéen ñi ci waajal màggalu poroxaan gi nga xam ne ren la ci fukki at ñaar yaakaar naa ci Touba Tabangoy arefaal yaaram ñuy waajal màggalu poroxaan kuñ koy defal mooy soxna jaara buso di waajuru seexul xaddim soxna jaara waajuram moo ko jàndal waajuram wu jigéen ñu koy wax soxna asawaalo lu mu xam ci alxuraan fa la ko wuttoo ci moom mokkal ko lool bind ko lool wuttu lu mu war a xam ci am xam-xamit soxna si mi ngi dëddoo àdduna ci fanweeri at ñett kon loolu jigéen wala góor képp ku ko dégg ku ne loolu war naa doon ab soññe ci yow ci soxna si li fa def ci diir ci say ak li ko sama borom fay tey nga xam ne soxna si kat kenn liggéey waaye kenn ki doon liggéey tey ay millions yu doomi aadama di la liggéeyal nga xam ne kon liggéeyal yàlla rek moo wóor ku wax màggalu poroxaan nag da nga wax berne waaye danga wax alxuraan waaye danga nga wax xasida kon bis bi ñu ngi koy waajalee ci alxuraan di ko waajal ci jàngam xasida mi nga xam ne dañoo am jàkke joo xam ne dañ ko koy waajalee nga xam ne jëriñ sëriñ aan mi lañ fay féetale mu nekk fa mbokki taalibe yi moom ñoom xaarim siiseeg mbokki taalibe yi ci ci ci gox bi yëpp ñu ànd ko di fa wàcc alxuraan di fa jàng xasida di ko addiyal soxna si ngir waajale ko lu suñ jógee foofu ñu ñëw ci waañ wi nga xam ne dañuy tàmbale ci waañ wi di togg ñam yi tàmbale ko ci ñaar fukki cin di togg ak a yàq ndekki yi noonu xewal yëpp di ko gàttandoo gan yi saaf kafe segg ko joxe ko ndox mi noonu lépp daal ci biir si ngir waajalee ko bésub soxna si te loolee de dafa war a ànd ak yar war a ànd ak teggin ndax sëriñ Cheikh Say mu baax ma indi sëriñ soin bu lam ñu waxoon kat man naa tax ñu war a bàyyi xel lu bari nee neewoon na de yéen de jaar naa fi xàmmee naa leen te xàmmewoo leen ci lim ñu xamee woon mooy lu baax kon nañ gën a góorgóorlu ci yar gën a lu ci teggin sëñ Mbay Jaxate kat day faral di wax ne soo yaroo soo ami teggin ñu jël teg la ci kaw soo yaroo te amooy teggin ñu teg la ci kaw te di la caw kon ñu doolee góorgóorlu mbokki taalibe fi ñu koy defee nag nga xam ne dañ ne Touba Tabangoy arefal yaram gox la buñ koy defee waaye mbir mi ñëpp ko moom tijaan ci biir mbooloo mi laayee nañ ci ñëpp a ngi ci ti ñëpp a ngi ci biir murit yéeg mbokki ta ñëpp a ngi ci biir mbooloo mi mbooloo la moo xam ne noonu mbooloom murit rek a ko dajee mboolem mbooloom tijaan mboolem laayeen mboolem boo tarixa boo tudd rek mi ngi ci biir mbooloo are tubaa tabangoy are faal yaaram bi kon nañ gën a jàjjiwaat xam ne mbir mi ñun ñëpp ñoo ko bokk xam ne li ñuy def nii soxna si ñu koy defal am na pay ndax moom sama borom boromam kat loolu liggéeyal ci kër këram ba sama borom fay ko lii tey ay millions yi ko fekki kon ñun ñi buñ góorgóorloo kenn ku ci nekk wax dëgg yàlla bu poroxaam gi jeexee da nga gis ci sa bopp ak yokku da nga gis bopp ak ak soppeeku bu baax a baax kon nañ doolee góorgóorlu waajandoo poroxaan gi ñun ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp nga xam ne bu ñu limee dañuy juum waaye ñu ngi lim magi koñ bi di lañ sant di lañ gërëm xam ne lii yëpp ñoom suñu waajur ñooñ ci nàmpatal su du woon ñoon lii duñ ko xam duñ ko mën. mbokki julli di mbokki taalibe yi gannaaw bi ñu santee yàlla julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam doole santaat Serigne Touba Xaadim Rasul bu baax ci dimbale gi ñuy dimbale ñun mbokki julli di nga xam ne ñoo aju ci moom ni mbokki taalibe di teewaay bi nga xam ne moo sabab tey mbooloo bi di wàccaayu poroxaan gi ñun ñëpp rek ñu maase xam ne képp ku dégg suñu kàddu nga xam ne ñenn ci mbooloo bi ñooy woote ñenn ci gox bi xam ne mooy Touba Tabangoy di are Fall Yaram ñoo woote woote bi nag weesuwul lu dul yitte jenn yitte képp gi ñu am di liggéeyu soxna Diarra Bousso bi li nga xam ne luñ moomal suñ bopp la ndax sëriñ bi moom suñ borom moo ñu ko jagleel di ci toll ci at mi ñu ne ci wàccaay bi tollu ci niñ koy mënti waxee ci baatub tubaab onze ans ci ren kon ñi ngi ñaan ci kàttanu yàlla sama borom dafa ñu ci fekke ak tal di ñu ci dolli suturaal nag bu baax ci jéego yi tàmbale tàmbalee dolli ñu suturaal bañ àggale ko jàmm kon mu mel ne bés bi da doon teru ci ñetti fan rek lañ ko daan amal waaye tey ñu yaatal ko ci baaxu sëriñ bi bañ ñu yokk ko ci juróomi fan juróomi fan nag muy bés bu njëkk bi di le 26 ñi ngi koy fas yéene tàmbale tàmbale bi doon ci nga xam ne ñooy suñu waajur yi ñi nga xam ne ñoo ne ci gox bi ak suñu dëkkandoo yi ñoom lañuy ñuy njëkkee ci bernde bi togg ko yekk jagleel ko bépp jullit bu nekk ci Touba Tabangoy gii di leen soññaat ne xam ne bés bi tàbbisi nañ si deuxième jour bi di le 27 le 27 bi tam ñoo ngi koy gàttandoo ci ganu sëriñ Touba yi nga xam ne ñoom ñoo jëm ci bés bu ci bés bu tedd bi nga xam ne ñoom lañ doon waajal muy le 28 bi muy le boobu noonu dañ ci teeru te teral leen ganu Sëriñ Tuubaa yi nga xam ne comme nañ ko daan defee ca ñett fan yi ñoom muy le 27 bi moom lañ ciy tàmbalee dalal leen wernde leen ci lépp gën a mucc rek loolee dana am ci le 27 bi le 28 bi nag di bés bi bés bi noonu lañ koy wéyalee muy ci le 28 bi noonu la koy agalee tamit ba ci le 29 bi muy pendant ñetti fan yooyu nga xam ne moom lañ ko jagleel muy ganu Sëriñ Tuubaa le muy le 27 le 28 muy le 29 le 30 bi nag dañuy dellusiwaat siwaat ci nga xam ne mooy suñu niñ ko tàmbalee woon muy mbokki taalibe ak suñu waajur yi nga xam ne ñoo nekk ci gox bi ñoom lañ koy berndeewaat ne leen nañ dollee ñaanaat te xam ne liggéey bi mate na fi ren muy la trent bi ñoom it ñu leen di dolli soñaar rek di leen wax ne bu boobaa buñ ci àggee jàmm ñu dollee fàttalikuwaat xam ne liggéey bi doonu liggéey are fal yaaram liggéeyu jullit yi nekk tabango yëpp la moo waral ñu tënk ko ci juróomi fan ndax ñoom ñu mën cee gis seen bopp kon nag ñoo ngi leen ciy woowaat bu baax a baax a baax de xam ne liggéey bi fu ca waay yem rek yaa fa yemal sa bopp mbir mi nag daa baaxoo rek ndax saa bu ñu wootee mën nañ woote kat waaye ku ñëw teewul danañ dem ku ñëwati teewul danañ dem kon nag woote yi moom da ciy am solo rek ba tax na bernde yooyu ñu leen di bernde ñoom waa gox bi ñu ngi leen ci dollee ñaanal rek képp ku déglu kàddu gi na soññaat njabootam soññ mbooloo ma nga nekk ñoom ñëpp ñu maasandoo ñëw jàpp ci liggéeyu Serigne Touba yi kon loole képp lañ ci jublu li ci ëpp solo rek suñu jëwriñ wax nañ ko suñu waajur yi wax nañ ko waaye li ëpp solo ci bés yi mooy juróomi fan yëpp danañ ko wàcce kaamil ndax saa saa bu ñu xëyee danañ ci wàccee juróom-ñaari kaamil wàcce ci ay baytu xasida pendant juróomi fan kon loolu ñoo ngi ciy doolee santaat yàlla suñu borom bu baax a baax di di ñaan yàlla nañ ci dugg a jàmm génn ci ak alhamdulilah rabbil alamin barke Cheikhul Khadim jërë ngeen jëf